waaw d'abord euh, ñun dañu lancé woon un programme un sénégalais un masque il trois semaines de sela mais nag ñuy dem ci gox yëpp tey nag ñu ñëwoon fii ànd ak euh, xale yi Médina waa Médina en couleur ak yeneen association ñu am initiative ba nga xam ne tamit ñoom tamit dañu bëgg a taxawu seen gox dugg ci seen gox xeex coronavirus bi déjà depuis sa matin dem nañu def ay don de sang bi ñu paree ñëw nañu fii nii ci Médina dugg ci koñ yëpp rukk yeeg rukkaat yi xool population yi nga xam ne tey amuñu possibilité pour am masque ñoom ñëpp vraiment ñi booloo ànd nekk benn euh, pour euh, euh, xeex li nga xam ne mooy coronavirus di joxe ay masque fépp fu nekk pour que ñëpp mën a am masque. Médina ni ko Youssou Ndour waxee mosuñoo des gannaaw donc bu ñu nangu. ñuy jël Médina di ko stigmatiser instant bi di ñu yóbbu foo xamante ne féetewuñ fa fii ay jeunes Médina tey ñoo taxaw ànd te yàgg nañ ci ndax ci action yi mel noonu xool nañ ni que banque de sang am na déficit ñu booloo daje àndandoo dem euh, centre nationale maye deret participer ci effort boobu noonu buñ fa jógee ñu ànd ñëw dajale sunu maigre moyen waa Médina en couleur ànd si ak waa UJDM ànd si waa AJ5M ak plateforme Bay Sa War ñëw defar suñuy masque confectionné ko jox ko suñuy waa Médina jàppale leen ci effort de lutte contre coronavirus bi di leen wax ni que masque bi port de masque bi c'est très important c'est très très important nañu takk masque yi ko négligé parce que day euh, limiter propagation bi di leen demander à ce que ñuy raxasu bien que gel hydroalcool mais c'est important doon xale tamit terewul tamit nga bañ a am jom am fula am fayda lu ñu tere ngeen bàyyi ko lu ñu wax ne lii moo baax pour xeex coronavirus bi ñu def ko te yàlla tax wane ne Médina ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay donc waa euh, kii Médina en couleur ak yeneen association yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ànd ci woon ak plateforme Bay Sawar pour tey xeex coronavirus bi wane ne Médina tey ñëpp bokk ànd nekk benn di leen wax ni que daje yi ñuy daje dëgg la toog ku xam ne dinaa xam ne jeunes dañuy toog attaaye kafre waxtaan nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi ku ne toog sa kër di def euh, déplacement ñu limité ko lu mënanta ñàkk ñu génn dem li ñuy def ñëwaat toog lu ñu mën a muñ ñu toog muñ ko te xam ni ko policiers yi ñin lañ fi nekkal ñun la ñuy jàppale autorités yi suñu bien la ñu bëgg nañu toog ngalla ku nekk toogee sa kër def le maximum possible di moytu coronavirus bi nañ ko fi vaincre te dina fi jóge incha allah.